ci ñëw fekk la fi yàgg nañ la fi fekk nga nekk sunu mbokk nekk sunu waajur jaadu na war na buñ fi duggee ñu ñëw jiitu fi jaar ci bunt bi waxtu bu yootu min abwaabiha ndax euh, porte-parole muy bunt bi waaye tey ñu ñëw fi rek comme ni fi candidat yëpp di ñëwee ak taalibe bëgg la woon wax liñ ci dugal dëgg la dongal daara ci tur bi mooy kuy jàng rek kuy jàng ci fuy njàngale daanaka fee sax dañuy wax da ngay dégg ñu ne daaray seexante jóg Anta te liñ jàng ci histoire li ñu xam ci histoire suñu histoire ñu ñu bokk ci dëkk bi jaroon naa tax lii ñu jóg ci ndax lu bon bon campagne bi baatu ndongol daara moom bari na fi dégg nañ ko fi ba tey waaw candidat bu leen <laughs> bu leen xaw a jaaxal la ndax buñ commencé di attaqué candidat rek wala ñu yebal ko attaqué rek mën naa am lu tax ñi xalaatu ci ñoom dara duñ leen duñ leen tudd sax waaye loolu dafa fekk ñun ñu xam ko ñu ko bu yàgg waaw xam ko bu yàgg moo tax dañ koy mën a dékku ah bëgg rek li nga xam ne nii moom la sëriñ bi won bind ko ci ay xasidaam eh, yaa ayyuha sibyaan laa tastaxiloo wa bil ulumi tastaxiloo bil hifsi wa tilaawa wa tanbi majalis ashaqawa dama jàpp ne xale bu ne bu doon bu defee primaire ba pare ñu jàngal ko tasawudu sixaar kenn du gisatu la naqari ki dëkk bi doo xaset doomu aadama doo yàq alalam doo ko doo yàq deram doo yàq daram li ñuy daj ci jàng salaabeer bu ñu ko jàngoon ci tasawudu sixaar rek wala yeneen téere yi mel na moom rek àdduna bi rek ndax wax bu élevé bu élevé la mais sëriñ bi jagleel ko ndaw ñi élevé ndax am mag sax mën nga koo wax waaw kilifa gu mag mën nga koo wax li nekk ci sa saxaar waaw waaye daf ko defe noo xam ni wane ne ba ngay tàmbali nga war a xam lii looloo tax ñun biñ jógee rek dugguñ fi ci ay lu compliqué di jéem a tubaab tubaab lu wala ñuy def leen damaa wax fee léegi ma ne maa ngi doog di xam lu tax ñi jàng tubaab am loolu ñuy wax complex ndax dañ ne ba ngay jàng e-, e-, tubaab école bi nga nekk boo fa waxee olof dañ lay takkal ab symbole mooy ab ab ab kii ab yax di la ko reetaane mu ne xoolal tubaab ni mën a yàqe doomu aadama fekk na ko moom ba ci biir këram jàngalu ko ci làkkam mu jàngal ko làkk tubaab ba pare ne ko fi boo ko fi waxee boo ko fi waxee bokk ndax ñemewuñ koo def seen réew ndax ñemewu ñoo wax ne seen réew boo waxee anglais ñu takkal la ndax seen baat yu bari ci anglais lañ ko jëlee amuñ amuñ ko sax ci tubaab ay marketing ak ay yu bari ay aloo ci téléphone ak yëpp amuñ ko ñoom kon ñoom nangu nañ ci seen biir kër ñu wax fa anglais waaye yow ñëw ci suñ dëkk ñun fekk ñoo suñu lànk jàngaloo woon ci boo ko waxee ci école ñu takkal la loo xam ne day mel ne dañ lay gàcce ñun boo demee ci côté bi ñun lañ ñu doon jàngal mooy bul wax baatu bul wax waxeen tubaab ndax damaa jàpp ne sëriñ ba muy wax naan pañ eh, tubaab dañ na jaamu yàlla du du làkk wi ndax bu doon làkk wi benn doomam wala benn sëtam du ko wax waaye jikko ja la wax waaw jikko ja doon wax ndax jikkoy tubaab dafa doy waar biñ tegee programme rek dañ koo séq dañ koo teg ci li ñuy jàng rek bi ci jiitu mooy àndu nawle ànd liggéey boo ko jëlee nag méngoo naab aayab naa innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li taarafu inna akramakum indallaahi atqaakum boo jëlee yokk ba yëg ko mooy kenn ku ne da ngaa war fexe ci li ngay liggéey nga yokk ba yëg ko dañuy wax yokk waaye boo ko yëgul amul njariñ fastabiqul xayraat aynamaa takuunuu ya'ti bikumullaahu jamii'an bu gëmee lool rek ne luy nga ci dëkk bi rek ñun war nañ cee jot waaye buñ nee dañ koy jox ñeneen ba pare tàll leen seen loxo ba boobaa affaire bi day déséquilibré ah buñ nee daara ji mooy xara moom daanaka mooy jàng mooy tas xara mooy tasawuta si xaar rek mooy tamit mooy loolu la tas saxilu woo bi mi la wax bu dee liggéey moom ñëpp xam nañ ne sëriñ bi moom ñaar la daan boole jàng ak liggéey lañ wax fii lañ jàgg dégg ñëpp xam ko ñu ne maam Thierno moo daan jox moo daan dimbale tubaab bi bu jafe-jafe amee léegi lañ jaar seen Cheikh Astou Faye mu dema ko wax xoolal loolu rek Lamine Gueye mu ñëw ci sëriñ bi di ko wax ne ko damay campagne gi sëriñ Fallou yëkkati fanweeri junni jox ko ba muy ko fa fàtte nga diw ak diw xam nga yëf yi inversé na léegi ah daa wëlbati ko ah ku yorub état dikk ci sëriñ Fallou mu jox la ba noppi nga oh, wow nga ne ko bul fàtte diw ak diw mu yëkkati ku ne waat cinquante mille jox la <laughs> loolu nag ah, boobu ñoom dañoo yoroon mbir yi ndax kenn ñemewutu woon a def dara te ñoo tàggu leen ndax nettali na la lettre ba ñu yóbbu woon nag ba Senghor ñëwaatee ak yooyu yëpp nettali na la yëpp waaw waaye léegi euh, kilifteef gi ñoom ci seen bopp sax ñoo bëgg a dindi kilifteef gi ci kilifa yi parce que mënuñu ne. ñoom dañuy jox ndigal seeni seeni militant ba bari ne sëriñ ki nga xam ni moo la moo la ngénte <laughs> moo la moo la moo moo la teeru moo la defal lépp boo génnee àdduna mu di la ñaanal ñu ne mënu laa jox ndigal <laughs> ah <laughs> ah ñu ne mënu laa jox ndigal ne la lii ay affaire politique la affaire nangam la affaire nangam ah ñun dañ ci yaroo ci daal yi xamuñ loolu ñun lu sëñ bi bëgg dañ ki nekk kon sëriñ bi daal maa ngi ànd ak sëñ Mbàkke ke am sëñ Bass Gelongal ak Moustapha ak njaboot bi yëpp incha allah di sàkku ñaan ci yow rek. dafa ñaan yàlla suñu borom. di ci réew mi moo nangu ba noppi nga ne sama ñaan nangu mooy la nga waxoon <laughs> fekkee ne dikk na ba nopp nga ne du woon lii loolu du bokk tag la suñu boroom du defe noonu kon nag na leen sàmm te aar leen te àggale yéene yu baax yëpp may leen ndam ci darajey sëriñ bi jërë ngeen taxaw bu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 ngir ay xibaar yu wér te wóor